comme ni ngeen ko xamee président Macky Sall le 2 avril prochain lay am fukki at ak ñaar ci nguur gi am na yu bari yu mu fi def yu baax yoo xam ne bët mën nañ cee tegu bët mën na koo gis mën nañ cee teg baaraam soppi na ci fànn yu bari xar kanamu Sénégal rawatina ci wàllu infrastructure muy ay tali hôpitaux et cetera am na aussi jéego yuñ dox pour. transparence maanaam nu réew mii lu ñuy wax gouvernance vertueuse gën a am ci réew mi maanaam yorin wi gën a sell waaye bilan boobu lu muy rafet rafet te waroon koo may mu dem demin bu jekk depuis bi mu nee dootu ne dootu candidat président Macky Sall xëpp na ci suuf xajamal na ko xajamal gi nag mi ngi jóge ci bi muy jéem a arrêter le processus électoral ñu war a dem élection le vingt cinq février mu xëy xëy le tro le trois arrêté ko muy lu garaw parce que président de la république même bu nekkee daa nekk candidat lenn rek la ko constitution bi sant bu desee juróom-ñetti fukki fan mu convoqué ci bis bi mu war a jeex mu war a jeexee mu woote mu wootee mu woo la corps électoral bu desee ñeent fukki fan ak juróom wala fanweeri fan ñu bis ñu woote buñ ko remplacer mu mu mu mu mu joxe pouvoir bi wala fekkee daa toogaat mu toog. Macky Sall def lu mu sañut muy xëy xëy arrêté ne décret bi ma defoon pour voter euh, corps électoral bi dindi naa ko muy une violation de la constitution une violation de son serment li gën a garaaw nag mu teg ci une loi d'amnistie maanaam ne li xewoon ci réew mi diggante deux mille vingt trois vingt et un ak deux mille vingt trois lépp effacé naa ko kenn wootewul gat sa gat sa kenn wóotewul appel à l'insurrection kenn wóotewul mortel combat kenn faatuwut alalu Auchan yàquwut alalu Total yàquwut alalu TER yàquwut BRT yàquwut université taaluñu ko doomu Sénégal yi seen alal yàquwut doomu doxandéem yi fi ñëw di liggéey seen alal yàqu lépp mu xëy effacé ko loolu nag li loolu moom kese la tegu ci mu doddam euh, président Macky war na askanu Sénégal war na ñi àndoon ak moom ba muy am jafe-jafe ci PDS war na ñu ko fal ànd ak moom depuis fukki at ak ñaar président la bi Macky Sall mi nga xam ne moo war a nekk pompier bi fay daayu Sénégal moo ko taal moo taal Sénégal sotti ci mbopp walla essence xeex bi nga xam ne xeex nañ ko diggante 2021 ak léegi démocrate yeeg républicain yu yi gëm yi gëm loolu ak force de défense et de sécurité muy police ak gendarmerie ak magistrat yi ak commandement territorial muy gouverneur préfet sous préfet xeex yu ñu doon xeex yépp Macky Sall xëy na wekk ko sànni ne dara amul woon xeex amul woon dara amul woon par une décision inopportune maanaam xalaat jëf joo xam ne dara baaxu ci te mën a indi puukare musiba ci réew mi ndax day tax day tax ñu ne Sénégal boo nekkee politicien lu ne mën nga koo def dara du la ci fekk dara du la ci fekk ndax politicien lu mu def lu ne politicien mën na ko ragal gannaaw bañ ne du moom loolu nag di lu garaaw parce que nag day mel ne ñaari Sénégal moo am Sénégalu politicien mooy Sénégal goo kumba am ndey ak Sénégal goo xam ne doo politicien Sénégal kumba amul ndey tey boo demee ca prison yi da ko fekk ñoo xam ne ganaar guñ sàcc m leen fa bàyyi ñii sàcc bëy ñii doon xeex ñu bàyyi leen ñoo xam ne ñoo sooke ay té ay fukki nit yu faa ay mbooloo mu faatu alalu di réew mi yàqu alalu doxandeem yàqu alalu doomu réew mi yàqu ñu bàyyi leen ñibbi seen kër parce que c'est des politiciens loolu lu garaaw a garaaw la loo xam ne mën naa am conséquence yu rëy rëy ci Sénégal kon loolu bu amee man de li ma gëm te loolu ci laa ma sa nekk 1976 ba léegi dana moo tax ma woote pour ñu sos kuréel gu tudd aar doomi Sénégal mouvement pour la république et la démocratie parce qu'en réalité lii am fii nga xam ne boo nekkee politicien loo neex def waaye boo nekkee doomu baadala lu loo def ñu sànq la doomi Sénégal yooyu laa bëgg aar aar leen ci mbi ci doxalin wu ñaaw woowu ci politique moo tax ma lancé li ñu tuddee aar doomi Sénégal mouvement pour la république et la démocratie bi gouvernement am adopté président la République en conseil des ministres groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar voté moom mu promulgué la funeste loi d'amnistie maanaam mu woote mu mu promulgué loi boo xam ne lépp lu fi amoon ci musiba diggante deux mille vingt et un ak deux trois raaf nañ ko amatu te li fi am deux mille vingt trois kenn rekk ko waral muy Ousmane sonk mi woote woon mortel combat ndax ne dafa am Macky Sall Antoine Diome ak sëñ Bassirou Guèye dañ ko complot ngir mu bañ a bokk ci élection te dara du ci dëgg kon. bi mu non seulement promulgué na loi bi mais bàyyi na ko mu ñibbi këram fekk na ñu bari kaso ñu bari fekk nañ ko kaso ñoo xam ne la leen fa yóbbu tam bàyyi leen fa te leen fa yóbbu moo gën a tuuti lim def loolu nag lu garaaw a garaaw la lu garaaw a garaaw la et c'est un précédent extrêmement dangereux et que désormais Sénégal pour ngay def politique soxlaatul nga am programme soxlawul ngay bind livre soxlawul ngay bëgg réew mi saagaal ñàkkal kersa wutali xeexkat loolu daal dana la jig loolu lu garaaw la mu bàyyi terroriste yi loolu wax ma ko de magistrat yee ko wax war a kenn huit chefs d'inculpation lañ doon topp Sonko set yépp ay kirim la benn bu ci ne waroon naa mën a tax mu tëdd à perpétuité Macky Sall xëy na day bàyyi lépp xëy na ñi da xëy na ñi dee da cee deelewut ñi yàqule da cee yàqulewut moo tax mu ñeme lii mu def man nag du ma seetaan réew mii di Sénégal nga xam ne damaa jàpp ni moo dàq ci réewu àdduna yi euh, moo gën a rafet ci réew Afrique yi ñu di ko ñuy ñaas kanamam ñaas bu ñaawee nii parce que l'histoire retiendra que Macky Sall a fait libérer des gens qui par comportement rey nañu ay nit yàq nañu alalu réew mi da alalu doomu réew mi ak alalu doxandéem mu bàyyi leen ñibbi parce que c'est des politiciens. Au regard donc de ces événements de mars 2020 et 2023 jusqu'au 3 février, date de tentative de report de la présidentielle au mois de décembre euh, wér na ñëpp ne askanu Sénégal mu ngi ci dugg na ci guddi gu na ci gutta lii musu fi am Abdoulaye Wade defu ko Sénégal Abdou Diouf defu ko Sénégal Senghor defu ko Sénégal euh, mamadu Dia defu ko Sénégal Lamine Gueye defu ko Sénégal Ngalandou Diouf defu ko Sénégal Blaise Diagne defu ko Sénégal même karpo defu ko Sénégal ay mbooloo mu fàtt ci caaxaan ñu xëy xëy ne leen dara amut kenn déewut kenn rayut c'est très li tegu nag mooy tey jii ñu ngi jëm 2 avril 2 avril ci la Sénégal nar a dugg ci gutu gu rëy parce que bu ñu toogee ba 2 avril mu demut bureau am démissionné wut conseil conseil constitutionnel dana jafe loolu mu trouvé ki koy remplacer parce que constitution bi ñett yëf la wax président bi day faatu yàlla bu Macky Sall faatu yàlla yéex a faatu bokk yàlla na day tële yàlla na yàlla bu mu tële wala mu bàyyi boobaa président assemblée nationale moo koy remplacer ñett yi bu ci deful benn. Sénégal dina dugg ci guddi gu rëy et malheureusement dafa mel ni Sénégal yëgaluñ loolu seen yaram parce que nu serons dans le vide institutionnel et vide constitutionnel parce que constitution lii nar am ci réew mi bala deux kon président de la république tax na ay tubaab yu bon jóg di xas Sénégal kenn ku ne ci yéen xam na ne États-Unis am na lu ñuy wax Guantanamo muy ay nit ñu jàppee Afghanistan dugal leen fa kenn ci ne yéen xam na ne États-Unis moo tas Afghanistan ak ak Irak Sénégal àggul foofu ba tax ab ambassadeur am bu yàlla sàkk muy wax mel ne c'est le gouverneur colonial du Sénégal gouvernement bu Sénégal ñàkk fayda ne miix société civile ne miix sëriñ si ne miir bàyyi ay tubaab ñu ñëw ci biir réew mi di dinu tutoyer chaque jour ñu ne pat waaye nag loolu li nu ko teg Macky Sall moo def lu moo moo taxaw nu mu war a taxawee ak la France dinu xas la France Faidherbe bu vingt mille waar waar la rey avant mu avant mu continuer sa colonisation ba teg réew mi loo xam depuis mille neuf cent mille huit cent quatre-vingt-cinq nekk fii di buur di bundi lu ko neex def la France bi doon bi taal Algérie la France bi taal Vietnam n'a pas de leçon à nous donner ak Union européenne waaye nag wolof Njaay def ne waxambaane bu ko bukki dajee ci dawee ci àll ci doxin wala ma kenn tooñ ba tax tubaab bi yàpp na dugal googu tubaab yi dugal seen seen seen loxo ci mbir moo xam ne ñun Sénégal la concerné bokk na ci góom bi gën a rëy bokk na ci blessure bi gën a rëy bu dal Sénégal ma jàpp ne nag nun waa Sénégal su fekkee gëm nañu réew mi gëm nañ ñi doon xeex ngir nu moom suñu bopp war na noo fexe ba lii ñu jàkkaarloo ñu ne ko teg muy États-Unis France ak Union européenne ndax nag Sénégal war nañ ko aar réew mi sonn trop ñu di ko ay ay ñu tekkiwu dara ñoo xam ne moo leen gën foofu toog fi toog ci sunu biirum réew di ñu loolu sunu ñàkk fayda la doomu Sénégal yu jigéen yi yu góor yi sama mbokk yi Sénégal ñu ngi dugg ci guddi gu bët setagul te nag loolu kenn dong nga nu ko teg le président de la république président Macky Sall waaye nag am na ñu ko ci jàppale mooy ñu ne ko demoon fekk ko jëm ñaajo di ko xalamal tam def tooxi na bi mu nu def ñoo ñu ça c'est des oligarchies politiciennes des oligarchies maraboutiques et des oligarchies affairistes ñoo xam ne seen bopp rek leen moo leen ñor waaye nag li nu dal nii day door a feeñ rek mais lu fi yàgg la en réalité depuis 1960 au ñi fi ñu yoroon réew mi ba lekk au lieu ñu tabax une démocratie seen démocratie bu yiw boo xam ne ñun ñëpp dañu xam ne réew mi noo ko bokk te mën nu ko séddoo démocratie boo xam ne kenn ku ne day xajoo morom ja ñàkk gee def moo nu teg lii nu dal tax na suñ démocratie donc dugg démocratie bu dal bu yiw république bi tilim lool ah gouvernance exemplaire maanaam yorin wu sell walla nation boo xam ne dafa ànd askan wu ànd am fu mu jëm loolu ñi nga xam ne ñoo yore 1960 ak léegi dañoo wane ne tële nañ ci au lieu de prendre la au lieu de promouvoir la culture de l'excellence maanaam jikko ju baax du mérite yeyoo li ngay am maanaam di jëf door a jël walla ngay ñaq door a tedd loolu mooy culture du mérite jàngaluñ ko nit ñi bañ nañ ko Sénégal dañ naan alal kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti parce que dañoo jàngalut ne nit balaa jël daa war a jëf balaa tedd daa war a nangoo ñaq ñu gëm loolu nag ay caaxaan maanaam ce qu'on appelle la culture du faux waaw ah, loolu loolu la mën a dal na muñal rek. bu bu ñu yokkee ceeb nga ne noonu yàlla nanu yàlla may lu ñu ko jënd loolu muy la le consensus du faux maanaam nit ñoo xam ne dañoo d'accord ci naxante mooy li Cheikh Anta Diop daan wax na Sénégalais yi ba dañ dañ leen a naxa nax ba soo leen dajalee te naxoo leen dañ yaakaar dëgg leen a wor mooy tax nga gis nit politicien jox ko mu taxawal ko ci naaj di daw topp ci wotoom tam buggul jabaram defal ko buggul doomam defal ko fekk nag askan wu jàngut mooy siim cere yi politicien bu jubut loolu daa bokk ci li dal Sénégal donc le euh, le conscience du faux des élites maanaam ñi jàng ñi borom barke yi nga xam ne benn itte lañ am mooy continuer di jariñoo askan wi waaye duñ ko jariñ moo tax warut bett kenn nag bu fekkee Sénégal jafe-jafe yi muy dund mi koy dund parce que nag fen ba jaaw waaw askan boo leen yarut ci jub ba ñu baax lu leen dal yaa leen ko teg malheureusement Sénégal foofu la toll ndax depuis 1960 bi indépendance politique la li muy teg ci réew mi mooy li ñuy wax la patrimonialisation de l'État boo ko doon wax ci wolof mooy nguur lekk ak naan folleeku day bette fooy wut nguur rek loolu ngay lijjanti fexe ba. àgg ci xewal gi sa bamba naat te doo liggéey par donc la patrimonialisation par des oligarchies politiciennes te li gën a garaaw ci démocratie nag day démocratie boo xam ne politiciens yi ñoo koy jariñoo waaye askan wi dëgg-dëgg boole wuñu nit dem leen seen quartier yi ngeen dëkk ndax waa quartier ba ñooy ñooy ñoo ñoo yoral seen bopp quartier ba dax village ba wala commune ba boo demee ci conseil municipal yi ña ngi fay fekk ay politiciens ñooy ñoo l fay représenté alors que dañ ne conseil municipal askan wi commune bi la dépense waaye loolu amul Sénégal représentant parti politique yi ñoo fa ne moo tax askan wi intéressé wu leen da ngeen di toog yéen ñu kenn ku ne ci yéen boo demee bu xamee maire am ca la yem bu xamee ñaari conseil municipal weesu ko or demal France commune boo dugg France yëpp xam nañ ko maire ba nu mu tudd waaye nag puisque ñoom dañu lijjanti seen mbirum bopp nun politicien loolay suñu yitte ah bu ñu faloo nit duñu xam duñ sax gis la patrimonialisation par des élites politiques ah, politiciennes affaires syndicales affairistes et maraboutiques <laughs> maraboutique donc euh, ngeen jéggal ma de waaw maraboutique dont la préoccupation dont la préoccupation est la perpétuité du système de prestation de recherche gis nga boo xolee Sénégal euh, bi tubaab bi ñëwee tubaab bi nag dafa xaral la bi mu reyee ma buur yi seen seeni doom la jël def leen chef de canton booba ak léegi li gaa yi di bañ mooy bañ a bokk mooy li naa bokk mooy ce que j'appelle la perpétuation du système de prédation maam naa bokk naa ciru naa xewlu donc Sénégal li ko bokk na ci li ko sonal mooy état bii di mucc deretam te pratiquement fa mu ko waroon taxaw taxawu ko njàng mi nga xam ne moo waroon a nekk ci la nit ñi waroon a jaar ba gën a xam seenum réew gën koo bëgg gën a am xarañ ay maanaam politiciens yu defu seen war taxaw ñu taxawaay taxawaay bu bon ak syndicalisme boo xam ne dafa jubut njariñu travail njariñu syndicat ba rek lay lay doxal loolu moo lan la jur cinquante quatre pour cent des sénégalais mënuñoo bind mënuñoo liir ci benn làkk lan la jur ay junni junni xale ñiy dugg ci géej gi ñiy jël ci désert pour génn Sénégal loolu gàcce la alors maintenant à cet état de fait de ajouté donc depuis une décennie une menace frontale contre la République, la démocratie, l'unité nationale par l'ex-Pasteur. Et son fini projet insurrectionnel. xam nga man dama naan dégg projet projet projet man defe ne lu ne la ay bëkk dem ñu génne li ñu tuddee projet muy programme bi soo koy xool nga xam ni ñi dañoo yeb askan boo ko liiree waxuma ne ku ko liir c'est vrai nag 54 pour cent liir dara. kon ñu quarante six pour cent ñoo mën a liir te xëy na ñu mën a liir sa loolu duñ ko ko liir waaye boo ko xoolee procès bi tax mbooloo faatu alal réew mu yàqu alal doxandeem yàqu li ak li ñu génnee wax dëgg yàlla yàpp askan wi weesuwul loolu waaye nag yàpp askan wi li ko yombal mooy askan wu jàngut askan wu gën a ëpp lu ne politicien bu jubut mën na leen ko teg alors mais li garaaw malgré tooxi bi fi am ñi fi faatu alalu réew mi yàqu alalu doxandee mi yàqu Ousmane Sonko ki waa këram tey jii ñu ngi daagu ci mbedd Ndakaaru peut-être réew mi ñu di leen tàccu ci koo xam ne ba mu génnee daa waroon dem sangoo ndoxum géej tëju ci néegam ndax gàcca moom kese ci histoire du Sénégal mooy leader politique buñ fi jàpp ci gone gu jigéen jiiñ la njaaloo mus fi am moom kese mooy leader politique bu ñu fi condamné ci diffamation mooy fen ak yàqub der kon kooku bu génnee waree su ko woon tàcc askan wu ko mën a askan wuy muy tàcc ku mel noonu nag c'est que askan wa lañ defarut askan wi victime la parce que damay wax toujours ne Sénégal moom lii rek fi moo moo moo am te kenn mënu ko dindi buñ bëggee Sénégal baax fokk ñu am sénégalais yu baax malheureusement Sénégal yu baax daa nekkul itti nitu politiciens yi parce que carte électeur rek leen intéressé sama bokki sëriñ ci yi moo tax nit ñi duñ leen defar ba ñu baax alors donc ñoo xam ne jàpp bi ñu leen jàppee sonk cinquante cinq jours këram mënut a génn yóbbu ko Sébi Xotaan indi ko hôpital principal yóbbu ko Cap Manuel réew mi ni teg gaz la kër ma seen tàkku Macky Sall xëy xëy bàyyi ko ne ko demal lay wi mu lay ci boo xoolee loi bi ne moo tax mu mu bàyyi leen boo xoolee lay wax xam ne lu amut li mu wax amut parce que li mu ne moo tax loolu amul Sénégal fii il y a pas de division nationale yéen ñëpp quatre kenn ku ne da pratiquement bokkul ak morom ji idnu bu mu bokk bokkuñu ay ay tarixa bokkuñu ay sëriñ waaye Sénégal xeexuñu ci tarixa xeexuñu ci diine xeexuñu ci waaso kenn ko fi doon jëm a gis muy MFDC il a été défait c'est pas pour rien que nous ñuy wax ci Sénégal naan benn bopp lañu ñu kenn mënu ko xar ñaar loolu nag takkul ay nit ñu am divergence politique parce que 360 partis poli 300 partis politiques c'est 300 Sénégal différents gisee nu ba bokkul la les 19 candidats mais 19 Sénégal yu bokkul la te loolu démocratie yëpp la am kon fii division nationale bu tax ngay bàyyi ay saay-saay di. Euh, di ñu ñibbi seen kër loolu amul Sénégal kon Macky Sall waxagul Sénégal li tax mu def lii mu def loolu nag lu garaaw la ndax pour man amnistie bii c'est une capitulation humiliation la à la limite c'est une haute trahison du peuple sénégalais rawatina ci nag ñoo xam ne son daj nañ ci lu ne saaga nañ leen ci menaces yi jël ak seen kër dóor nañ leen ci yéen waa Sénégal suma mbokk yi fii ma toll ci samay kàddu dama bëgg nag rendre hommage ñi ñi nga xam ne seenu bëgg Sénégal tax na Ousmane Sonko yëkk leen lu ne waaye seenu bëgg Sénégal tax na ñu muñ saaga ya ak mënaas ya taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw ñooñu ñan la ka ma ciy njëkk tudd mooy Juge Tamba Sall lu bon lu ne wax nañ ko te marees na ko mag mii nit gënu koo gore ma ngi ci àllaaxira daan ko fekki bis da ci dëgg daan ko fekki suñ koo fekkee du rus parce que liñ ko doon tuumal defu ko kon maa ngi koy rend hommage di ko ñaanal yàlla suufu sal suufu saalum sedd ci yaxam bokk na ca Amadou Diouf le magistrat Amadou Diouf Serigne Bassirou Gueye Maham Diallo Ibrahima Bakhoum Abdou Karim Diop et tous les magistrats du Sénégal parce que c'est avec les forces de défense et de sécurité et la fermeté des magistrats que Sonko a été défait arrêté jugé deux fois condamné deux fois et sa candidature invalidée dëkk bi ne teg kon lay wi Macky Sall di lay too ne moo tax mu bàyyi ko na seet weneen lay wii jubut man na xam ne nag jàpp nag li si Anta doon xam Sénégal yi seenum xel daa ràgg moom daa jàpp ne Sénégal yi seenum xel daa ràgg ba loolu ba élément de langage boo jox ñu mën ko ñu mën koo jàllale waaye maa ngi fi lu war yooyu dama koy leeral parce que euh, wax ju jubul la ci ñi may rendre hommage aussi ma boole ci général Moussa Fall jàmbaari fàkk tëdd ji ak colonel Abdou Mbeng ak tous les gendarmes ñi seen loxo dagg ñi am paralysie ba faw du tàggu moom ñi seen i bët yàqu ci woote xeex boo xam ne ay fen rek ko laal maa ngi rendre hommage tous les gendarmes ah, xeex bi ñu doon xeex contre l'insurrection d'Ousmane Sonko et son parti adduna du fàtte mukk jaloore yi nga xam ne Seydou Bokar Yàgg directeur national de la police nationale def na ko ak policiers yi nga xam ne moo leen yilif maa ngi nuyu aussi maa ngi saluer maa ngi rafetlu taxawaayu avocat yu mel ni ne El Hadji Moustapha Diouf Samba bi Abdou Dialy jalikan Ndeye Anta Ndeye Anta Sarr sans oublier l'agence judiciaire de l'État Yoro Moussa Diallo ñi nga xam ne ay administrateur civil lañ mooy gouverneur yeeg préfet yi ak sous préfet yi ñoom itam maa ngi leen di sargal di ca jiital nag ci sargal bi gouverneuru Ndakaaru Al Assane Sall Alioune Badara Samb moo nekkoon préfet Ndakaaru léegi mu ngi nekk gouverneur Saint-Louis docteur Djibi Diallo mooy sous préfet bu Plateau ak administration centrale bi yëpp boole ca nag Tanor Tandela Fall le directeur général de la des élections maa ngi rendre hommage aussi aux citoyennes Aïssatou Diop Fall ñaŋ seen consoeur la di rendre hommage Ndeye Sow Layla Mati Trois Pommes Françoise Hélène Gaye Ndeye Fatou Ndiaye et Gabriel Kane di rendre hommage aux chefs religieux Serigne Moustapha Sy Al Amin ak Serigne Lamine Sall moom Serigne Abbas Sall di rendre hommage aux citoyens Madiambal Diagne Amidou Kane Amidou Anne Yoro Dia Ibou Fall Bassirou Fofana Ba Diakhaté Major Kandji commissaire Cheikhna Keita Tange Tandian Abdou Nguer maxtar la kagulaar ñi ma tudd ñëpp nag kenn ku ne am na këlëb bu saagakat xam ne saaga leen rek la ñuy liggéeyee waaye nag téewul ñu def leen war dem mooy taxawu seen askan maa ngi woo tous les républicains les vrais républicains les vrais démocrates les vrais patriotes ak ñépp ñoo xam ne Sénégal seen yitte la ñu wuy suñu ci plateforme bii ñu tudde aar doomi Sénégal mouvement pour la république la démocratie aar doomi Sénégal rek moo ko yëkkati aar doomi Sénégal bañ fer am tiit aar doomi Sénégal bañ fer yi nax aar doomi Sénégal ba seenu ñàkk seenu ñàkk xam-xam ak seenu néew doole dootu fi nekk di siim cere yi politicien ñu ñëw ànd ak ñun xeex bi le populisme muy démagogie wax digg lu mënta ne ak l' extrémisme bu yàlla muy loolu ci Sénégal ki ko fi incarné kenn rek la muy Ousmane Sonko ah man de li ma ci war dinaa ko def ndax li ma fas yéene ba ba may faatu bu bëtu Sénégal xonqee su geesoo dina ma gis du ma xaar mu ne ma ñëwal ndax loolu laa gëm ni république bi dañ ko war a sàmm démocratie dañ ko war a sàmm panafricanisme dañ ko war a sàmm libéralisme nañ ko war a sàmm ak laïcité ak lu ay ak idée yoo xam ne mooy le progrès di jëmale askan kanam ak loo xam ne day aar jigéen parce que bokk nañ ci feebaru Sénégal place bi ñu jox jigéen da nga xam ne nga dem jàkka ñuy takk jabar ñu ana kii ñaan si mu ne maa ngi nii ana kii maye mu ne maa ngi nii ñuy joxe ñuy maye no nit a ngi noppam baat bi sax jubut xam naa loolu bu dañ ci dellusiwaat ci yeneen jamono alors donc au nom de cette responsabilité ndax Sénégal dañoo dem ba banaliser le mal maanaam woote fitna mbooloo faatu alalu réew mi yàqu alalu doomu réew mi yàqu alalu doxandéem yàqu ñu xëy xëy ne jeex na te Sénégalais wàcc wàccuñ ci mbedd mi defante ki ne jeex na c'est parce que nit ñi dañoo àgg ci ne lu maanaam lu bon bënatul lu bon bonatu walla lu bon bu bonee itam yow bu fekkee mi ngi lay arrangé rek baax na loolu lu garaw a garaw la ah ma jàpp ne nag monsieur Macky Sall mi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko fal ñaari yoon moom fukki at fukki at ak benn ak ñaar ak fukki at ak ñaar ci nguuru état bi bi Sénégal amee indépendance ba léegi ñeenti nit ñoo fi nekk gun président président Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ñeenti nit ku yàlla boole ci ñeenti nit yi Sénégal di seetlu la dara war nga am loo ko jomb def ah ñun nag man bokk ak képp koo xam ne maa ngi yow ci gis-gis ñoo ci gis-gis dinañu xeex bi daan ko xeex ba li nu tuddee sunu bopp mooy ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar loolu nag mooy lan kenn ku ne kii doon wolof kii doon séréer kii doon bambara kii doon jolof-jolof kii doon waalo waalo ñu xam ne ñun ñëpp nag cent quatre-vingt-dix-sept mille kilomètres carrés ñoo ko bokk te ñu ko séddoo ñu xajoo fi mooy xeex l'ethnicisme mooy day taqale alors que xeex ko la war a def ba nit ñi fàtte ko xam ne la nouvelle ethnie bi nu war a uti bi nu war a am euh, ñor mooy l'ethnie sénégalaise mooy la république ah ñun nag fas nañu yéene ci kuréel gii nu sos di wax suñuy xalaat nag ci réew mi waaye xalaat ya lenn dong moo koy tàttan nan la ñuy fexe ba aar doomi sénégalais yi ci wépp lor war a jóge ci fu mën a jóge jëm si ci ñoom loolu nag daañ ko mu ne bu baax a baax contre le populisme comme ni wax despotisme maanaam di buur di bumbi loolu mooy despotisme c'est que waalo kii Kajoor boo kii Bawol ba fa dem ah waalo Jolof pardon suñu masaan fal buur dañuy fal bummi c'est-à-dire buur ak bummi du benn bu ñu falee buur dañuy fal bummi Sénégal nag depuis 1960 ñu yor nguur yi moom dañoo nekk buur di bummi loolu bokk na ci suñuy jafe-jafe donc ñun xeex bi daan ci def lu nu war pour que lii am Sénégal diggante vingt 2021 ak léegi li li président Macky Sall def le 3 février ak léegi beneen président la dootu ko def beneen politicien dootu ko ñemee def parce que dara baaxu ci kon yii kàddu laa yëkkati woon pour jaarale ko ci yéen ngir mu àgg ci askanu Sénégal ñoo xam ne sos maanaam ub maanaam ubbi nañu sas wala boog ab tool boo xam ne ñu ngi ci tool bi Sénégal dong moo ko tax a jóg mooy aar doomi Sénégal yi aar doomi Sénégal yi rekk moo ko tax a jóg wanañ ci képp koo xam ne doomi Sénégal yi nekk na sa yitte kon encore une fois foofu maa ngi leen di gërëm euh, yéen journalistes yi ñëw euh, comme ni ma ko waxee sànq gis nga réew moo dem nag gis fa presse bu libre xamal ne réew mooma démocratie nga fa kon mën nañ jàpp Sénégal réew démocratie la malgré démocratie la nag yu bon yi fi am diggante deux mille vingt et un ak léegi politique nee na dara xewut le vingt le trois février Sénégal yi di waaj a dem élection Macky Sall xëy xëy ne arrêté naa matt bi xare arrêté naa match bi te matt bi moom muumu ko d' abord joué ci mais moom muumul match bi mu xëy arrêté ko coobareem téewul mu dem sabi xotaan ay nit di ko xalamal ñi fi def tooxi na fa woote fitna ba mbooloo fàttu ci ñu génne kaso ñu di leen tàccu finalement Sénégal de def fi lu baax sax boo deful ndànk amatul njariñ parce que man dama defe ne jàmbaar ju def njàmbaar bu génnee kaso kooku la ñu war a tàccu waaye saay-saay bu yet woote fitna askan wi fa mbooloo faatu ci ñu ñu ko tàccu réew mu mel noonu ku ko ku fa ku ko jiite te amuloo looy set loolu neex mën koo teg askan wi mais encore une fois moi je danaa maa ngi rafet njot ci ne xëy na ginnaaw yéen a ngi fi te da ngeen jox paral ku ku ngeen jàpp ku jàpp ne am na lu muy wax defe naa ne xëy na lu coow li dina bari coono bi dina metti waaye yaakaar naa Sénégal dana mucc ci yenn musiba yi waaye nag pour mu mucc ci moom il faut que Sénégalais yi nag bàyyi di tayle seenu xeex te di ko xeex man dama woo woo woowu ma kenn pour mu xeexal ma damaa woo nit ñi pour ñu xeex ngir aar doomi Sénégal muy aar nu ñun ñëpp. encore une faa maa leen di remercier ci seen dikk bi di leen jox ndaje beneen yoon ci yeneen façon nag boo xam ne du bokk ak ñëw rek toog wax bu ma bi yoon déclaration bi rek moo tax mais su ëllëgee bu ñëwee damay wax li ma war a wax ma noppi nag déglu leen ngeen laaj ma parce que nag yéenay bëtu askan wi yéenay nopp askan wi yéenay gimiñu askan wi ku bëgg a wax ak askan wi nag war naa mën a wax ak yéen encore une fois je vous remercie merci beaucoup. asalaamaaleykum Euh, mbokki journaliste yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci wuy si gi ngeen wujji wuy si woote bi ma leen woo euh, comme nu ma koy waxee toujours ci démocratie boo amee xalaat pour bëgg ma àgg ci askan wi ci presse bi rekk nga ko mën a jaarale ndax presse mooy gimiñu askan mooy nopp askan mooy bëtu askan kon ku am loo xam ne da ko bëgg a wax ci yéen rek la ko mën a jaar boobu responsabilité nag yéen dong la ko Sénégal la yéen ko am Sénégal euh, ndaje mi nag dañ koy def ci ñaari ponk benn bu njëkk bi damay lire texte bi ci déclaration bi ci français su ma ci noppee tënk ko ci euh, wolof bu ko defee ñu daal di ñaanalante maanaam lii point de presse la du conférence de presse conférence de presse moom dañ ci def yu bëree bëree bëri fan yu nu jëm euh, bu sobee yàlla waaye tey moom dañuy def point de presse déclaration la pour am lu nuy bëgg Séné Sénégal yi yëg ko bu ñu ko yëgee ba noppi nag ca dañ ci def yeneen conférence de presse bu soobee yàlla yu bëree bëri euh, kon damay lire la déclaration fondatrice. euh, de la plateforme que j'entends initier dans le cadre de l'espace politique et démocratique sénégalais. Fille du Sénégal, fils du Sénégal, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, en 12 ans, le président Macky Sall a obtenu des résultats économiques exceptionnels qui ont transformé le visage du Sénégal, notamment en matière d'infrastructure Il a aussi engagé des réformes fortes qui encouragent la transparence et la réduction des comptes sur la gestion des affaires publiques. Mais ce bilan, aussi reluisant soit-il, est affaibli par des actes récents qui perturbent le chemin de départ du pouvoir balisé depuis le discours historique du 3 juillet 2023. La tentative inconstitutionnelle d'interrompre le processus électoral et l'amnistie des crimes et délits commis par Ousmane Sonko et ses, par, et ses amis constituent des fautes dont le président de la République porte l'entière responsabilité. Le président Macky Sall a trahi le peuple sénégalais, a trahi ceux qui l'ont soutenu durant sa traversée du désert et a trahi ceux qui l'ont porté au pouvoir pendant 12 ans. Le président Macky le président de la République monsieur Macky Sall qui devait qui devait être le pompier du Sénégal est devenu son pyromane des années de lutte acharnée d'une frange de du peuple sénégalais d'une grande d'une large frange du peuple sénégalais des forces de défense et de sécurité des magistrats et des com et du commandement sont réduits à néant par des décisions inopportunes dangereuses pour l'état de droit car elles promeuvent l'impunité et la désacralisation des institutions républicaines. Au regard de ce qui précède et fidèle à mes valeurs, j'ai décidé de lancer la plateforme de réflexion et de combat Art Domi Sénégal, Mouvement pour la République et la démocratie. Pour que le Sénégal reste le Sénégal, c'est-à-dire la vitrine de la démocratie en Afrique. Avec l'adoption par le gouvernement le vote par le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar et la promulgation de la funeste loi d'amnistie des crimes et délits commis par Ousmane Sonko et son opposition insurrectionnelle en plus de sa libération ainsi que celle des dizaines de hordes de terroristes je ne me résoudre à voir le plus beau pays d'Afrique et du monde être balafré sans rien faire au regard des événements de mars 2021 à juin 2023 jusqu'au 3 février 2024, date de la tentative de report de la présidentielle au mois de décembre 2024, il est indéniable que la nation sénégalaise est aujourd'hui à la croisée des périls. Les soubresauts actuels, à la suite du report de l'élection initialement prévue le 25 février 2024, sont porteurs d'incertitudes, de confusion, de violence et même de graves dangers. La confusion qui règne sur la date du 2 avril 2024 vient accroître le risque d'une plongée vers l'inconnu. Les errements du président de la République ont engendré une inadmissible ingérence dans les affaires sénégalo-sénégalaises de puissants étrangères que sont les États-Unis et ses valets européens, la colonialiste France et l'Union européenne. Les immixtions de ces impérialistes dans les affaires intérieures constituent l'une des plus grandes menaces pour la souveraineté nationale. Nous devons faire face à ces dérives diplomatiques et nous, et et nous unir en tant que pays pour défendre notre nation contre ceux qui tentent de nous nuire. Fille du Sénégal, fils du Sénégal, mes chers compatriotes, notre patrie traverse une crise aiguë dont l'unique responsable est le président de la République, M. Macky Sall, avec la complicité active de différentes oligarchies politiciennes, maraboutiques et affairistes. Mais ce qui nous arrive au fond, ce n'est qu'une manifestation ponctuelle d'une crise plus longue, plus profonde et plus grave. Il s'agit d'une impossibilité depuis de mettre en place des conditions d'une démocratie saine et solide, d'une république irréprochable d'une gouvernance exemplaire et d'une nation unie vers un destin commun. Au lieu de promouvoir la culture de l'excellence, du mérite et de la citoyenneté, de la vérité et de la sincérité, les autorités sénégalaises depuis 1960 ont plongé le Sénégal dans un consensus sur le faux avec une élite qui n'œuvre que pour la perpétuation d'une culture de rente sur le dos des populations maintenues dans l'ignorance, l'obscurantisme, les croyances magico-religieuses, la servitude, la mentalité de subordination et la mentalité de subordination. Il n'est guère surprenant que depuis des décennies, le Sénégal soit tiraillé par plusieurs maux. La politique menée depuis l'indépendance, entre guillemets, se résume à la patrimonialisation de l'État par des oligarchies politiciennes, syndicales, affairistes, maraboutiques, dont l'unique préoccupation est la perpétuation du système de prédation des richesses du pays. Le Sénégal souffre de la calamité de l'étatisme, de l'hyperprésidentialisme, de la gouvernance prédatrice, du piétinement des principes de transparence et de réduction des comptes. L'éducation nationale a été sabordée par des décennies d'irresponsabilité politicienne et de syndicratie débile, poussant par ailleurs, par, poussant, poussant par ailleurs les vagues de jeunes prendre le chemin, les chemins douloureux de l'exil. À cet état de fait s'est ajoutée depuis une décennie une menace frontale contre la République, la démocratie, l'unité par l'ex-Pastef et son funeste projet insurrectionnel de négation du Sénégal qui a provoqué mort, violence, destruction de biens publics et privés nationaux comme étrangers. Alors que ces leaders ont été défaits, appréhendés, mis euh, hors état de nuire au nom d'une prétendue politique de décrispation, de cohésion nationale et de réconciliation, ce parti et ses dirigeants ont, sont promis à un retour dans le jeu politique national par le biais d'une amnistie capitulation. Cette amnistie humiliation n'est plus ni moins qu'une honteuse trahison à la République, à la démocratie, vis-à-vis de celles et ceux qui ont payé de leur sang les agissements criminels d'Ousmane Sonko et de son défunt parti. Fille du Sénégal, fils du Sénégal, mes chers, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, à ce stade de mon intervention, je voudrais rendre hommage aux amoureux du Sénégal qui ont bravé les menaces de mort, les insultes et les calomnies d'Ousmane Sonko et ses partisans. Il s'agit de feu le doyen des juges Samba Sall des magistrats moom Amadou Diouf Serigne Bassirou Gueye Maham Diallo Ibrahima Bakhoum Abdou Karim Diop et tous les magistrats du Sénégal au général Moussa Fall du colonel Abdou Mbeng et de tous les gendarmes de la République dans la lutte contre l'insurrection initiée par Ousmane Sonko et son défunt parti le Sénégal sera éternellement reconnaissant au directeur général de la police nationale Seydou Bokar Yàgg et à tous les policiers de la République. Je salue et magnifie le courage, le, courage des, des avocats El, El Hadji Moustapha Diop, Diouf, Samba Bitey, Abdou Dialikan, Ndeye Anta Mbaye, sans oublier l'agent judiciaire de l'État, Yoro Moussa Diallo. Les administrateurs civils méritent les félicitations de tous les vrais républicains il s'agit des gouverneurs préfets et sous-préfets particulièrement monsieur Al-Hassan Sall gouverneur de Dakar Alioune Badara Samb l'actuel gouverneur de Saint-Louis qui était naguère sous-préfet à Dakar docteur Djibi Diallo le préfet le sous-préfet de la de, de l'arrondissement de Dakar Plateau et toute l'administration centrale sans oublier monsieur Thiendella Fall directeur des élections je rends hommage aussi aux citoyennes Aïssatou Diop Fall Niang Ndeye Sow Layla Mati Trois Pommes Françoise Hélène Gaye Ndeye Fatou Ndiaye Gabriel Kane au chef religieux Serigne Moustapha Sy Al Amin Serigne Lamine Sall au citoyen Madiambal Diagne Amidou Anne Yoro Dia Ibou Fall Bassirou Fofana Ba Diakhaté Major Kandji commissaire Keita Chana Keita Tange Tandian Abdou Nguer Makhtar Le Kagoulard et Kader Dia du Sénégal fils du Sénégal mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora J'appelle les vrais républicains, les vrais patriotes, les vrais démocrates et tout celles, toutes celles et ceux de justice et de liberté à faire face et à nous rejoindre, à rejoindre la plateforme Ardomi Sénégal, Mouvement pour la République et la démocratie pour combattre le populisme, l'extrémisme violent incarcéré par Ousmane Sonko et son défunt parti. J'y jouerai mon rôle comme je l'ai toujours fait, conformément à mes principes amee valeur républicaine démocratique panafricaniste libéral laïque progressiste féministe et foncièrement antifasciste au nom de cette responsabilité devant la banalisation du mal du ruse de la capitulation et de ma volonté de tracer un nouveau chemin d'espoir pour notre nation meurtrie par les errements de monsieur Macky Sall qu'elle qu'il a élu qu'elle a qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a élu deux fois, j'ai décidé souverainement de fonder Aar Doomu Sénégal, Doomi Sénégal, Mouvement pour la République et la démocratie. Nous porterons dans le débat public une parole libre, exigeante, souveraine, en vue de défendre les valeurs de liberté, de laïcité et de, de démocratie et de paix. Nous mènerons un combat sans relâche contre l'ethnicisme, le régionalisme, le despotisme le populisme l'extrémisme violent l'islamisme politique et le fascisme en proposant des mesures courageuses pour refonder notre pays sur les bases démocratiques libérales et républicaines nous nous engageons résolument à affronter ces défis à gagner les batailles pour de la refondation politique institutionnelle économique sociale et culturelle pour asseoir les bases d'un Sénégal debout juste et prospère au nom de la République, de la démocratie et du vivre ensemble, vive le Sénégal, vive la République, je vous remercie.